sëriñ Màkki wax na leen léegi ci waxam ne. lu baax. baax. mooy jur lu baax. di nga ne ñu bon ñi. ñoo ñu bon ñi. mu ne moom de lu wax ne baax na. ndi waaye ndigal du ko bàyyi motu digal. wala maamam motu ko digal. mun ko topp ba tey jii. moom tam mooy seen ndigal ci seen teewaay nag waxi noppi mu ne mu ngi leen di nettali toujours dem kenn xamu ko ba mu ne ba muy dem itam étudiant la rek école tëj business. bëgg naa dugg ci business. defar xaalis balaa defar xaalis balaa dem na Kinshasa mu ne xam fa keneen. jabari woo woo nga njaay. jigéen rek lañ ko ñoom ñëpp siise rek lañ ko doon wooyee. lim lim ne suba lay dem. mu di ko xool ba yàgg mu ne ko Cissé. wallaay waxoon ñu foo jógee ci Sénégal. wallaay waxoon ñu foo jógee ci Sénégal. waaye jikko yii. nit ñi kowe nga jógee. ci nit ñi kowe nga jógee. te dolli ca. arab yii. la gisee. waxtu wuñ la gisee. ñëpp taxaw ba ba ngay toog toog yow kenn toog. ku weex du màggal a ku ñuul ku dul dara. te nit ku weex du màggal nit ku ñuul ku dul. mu ne Afrique du Sud la ci dem. ba muy wàcc ci aéroport ba. laaj ne kii buuni ban dëkk gaana gi mu mujj romb gaana gi mu mujj romb ñëw fii. jaar ci aéroport dañ doon laaj ne kii buuri fan la. mu ne Seydina Cissé ñu nii daaw jéeg ànd nañ New York. ci aéroport ba. xam nañu ñëw ba ca moom ne ko kii buuri fan la. police bi ñëw nag man mosuma jox loxo ci sama police bi ne ko man mosuma jox suma loxo ci suma dund ci ab ndax buur bi mën naa ko jox mu ne loolu yëpp kat duur nguru alxuraan ji rek la. alxuraan ji rek la. mu ne ba tey moo waxaat la ko. ànd nañ joos. mu ne ànd nañ bu mii. may yi yàlla may bàyyi. il fait may yi yàlla may bàyyi. Ah, asal sa gi rëy na. ba yàgg mu te ah, nguuram maam gi de rëy na. mu ne ko lii nguur wi nguur wi daa yàlla. alxuraan jooju. mu ne waaye alxuraan jooju. soo ko toppee. soo ko toppee. teraanga yooyu yëpp dana la ci fekk. teraanga yooyu yëpp dana la ci fekk. sori nañoo nekk buur. ñun sori nañoo nekk buur. waaye alxuraan ji rek moo ñu def. waaye alxuraan ji rek nag moo ñu def buur. ñaar naa nag.